ci matériel lu des médias nan lañ koy mën a am Sénégal loo xam ne dañu ni démocratie Sénégal delluwaat delluwaat na ginnaaw su ma doon yaa bëggoon gis la soog Sénégal euh, dugg jàpp de télé def inventé matériel bi parce que lii euh, delloo li mooy mal dinaa la tëj dans la force euh, lii delloowaat buumum jaam la Euh, mënoo ñëw fekk ay nit yu war a tàmbali seen émission nombre de télé heure bi waroon na fekk suba teel di matinal bi nga xam ne la première matinale au mhm. ah, euh, a jàll divertissement ak micro yi taabal li nga fii mooy euh, ah. fi ñu doon ñu ngi def ay recensement nag ci loo xam ne nii d'après eux c'est suñu élément kii de tonton boobu lay nuroo Abdoulaye Ngom mi nekk mu procédure boo xam ne ñoom ñoo ko diligente def seen i seen i seen i. ah mooy huissier. ah c'est normal def seen projecteur ne ci kaw. ma ngay compter xam ne. baatu Sen euh, foofu lañ toll bu léegi nee nañu euh, dañuy def inventaire matériel bi nekk groupe des euh, médias. actuellement ñu ngi troisième foofu la télé bi nekk. dugg nañu régie inventaire nañu ko bind nañu ko nag. waaw jàpp leen ko en direct Sen TV ngeen seetaan action yi muy demee. boo bu ñu ci noppee nag ñëw nangu ci biir ñëw dañoo ànd ak gendarme ak police ñu ngi ci buntu fees am lu ñëw nañ ñëw ñëw dafa am lu chef ubbil leen chef ubbil leen def contre expertise waaw nañu xayma nañu ñëw xayma lépp mais nag waa defoo ko. waaw ko temps bu mu noyyi. waa Sénégal yëpp tribunal ba mu saisir tribunal. mu ngi mooy. ànd benn gendarme benn. ñaari gendarme ñetti gendarme ñeent. mais arrêté wu ñu continuer. ñeenti gendarme walaay kenn dong doyoon na waaw yaay dañoo bëgg. te xam ne duñu leen wax dara. ba ay ay ay ba nga xam ne élection yi ñëw nii. dañ ci wax parce que nag affaire affaire bi loolu lay niru ah. Euh, euh, li ma lay wax euh, Thiam. moom mooy. aleykum salaam chef kaay la ñu nekk waay. lii lii di des lii di lii di lii euh, ñi nga xam ne ñooy personnel personnelu des médias euh, tey na mm-hmm. nañu Euh, sénégalais yi jaaxle nañu euh, moom mooy mhm. euh, tey ñu xëy lundi bi fekk fi ay gendarme yu wër des médias dugg ci biir kër gi fees fi dell bureau bu ne ñu taxaw fi boo leen waay xam ni ñoo ngi nangu si matérielu des noonu laa koy tuddee nangu si matérielu des médias tey bu dee mburu alaaji la bugaan dafa jël gëm ci bopp mburu alaaji la lépp lu jëm ci wàllu des café gi sama café papa la. Eh, la. fàtte woon naa càndum. téléphone boobu bu bu la. Mantoulaye may ma jàllale càndum nii nga xam ne mooy directeur info. Mhm. moom dafa fàtte benn trousseau bu def nag ay caabi ci benn taxi samedi booru vingt une heure. cité kër góor yi ak euh, cité kër góor gi ak unité trois Parcelles Assainies. Mhm. képp koo xam ne daal euh, am na nag euh, ay caabi yu bëree bëree bëri bokk na ci caabi oto tam marque Toyota. Mhm. ay prothèse dentaire trousseau baa ngoog loolu daal moo ca ne képp koo gis ne na nga woote ci 77. 645 36 58 wala nga indi ko Zik FM déposé ko. yoonam yoonam yoonam yoonam nekku ci am na loo xam waaw. maître ça va. maître ça va. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. élection yaa ngi jëm. Mhm. mën mhm. naa ñaaw. parce que Sénégal yëpp ay borom mhm. xel lañu. Euh, élection yaa ngi jub si ku nekk gis na liggéey bu am solo. bi nga xam ne nii. des médias def na ko bi bi bi ñu def treizième législature bi. bi ñu def treizième législature bi des médias def na liggéey bu am solo. doo ñu tegal premier test mën a annonce léegi. Mhm. moo gën ay buntu li nga xam ne nii moom la askan wi war a xam. allo ci assemblée nationale. allo waaw mais bindal message nga wax ma xale bi nan la tudd ak yooyu. bokkul ak li nga xam ne moom la ñu koy doy. mooy xuloo bi xeex bi xiiroo naayo bi. tey jii euh, euh, euh, journalistes yi ak chroniqueurs yi ak ñooñu presse de hmm? manière générale ñu ngi dañu dañu dem ba substitué wu nekk ñëpp nga am rek di xool fan leen yóbbu leen ci ni ñuy defee xayma yeeg yooyu yëpp ñu war ñu war a ñu war a euh, euh, teewal askan wi waxal askan wi xayma bi nag fekam fekam defuñu seen liggéey mais c'est normal que relais bi journaliste yi ak homme de presse yi jël ko se passe en ce moment eh, eh, moo waral ñoom it ñu def loolu donc hmm. loolu suñ leen ci bëggee topp bëgg leen ci faagaagal mu day hmm. mel nii dañoo bañ des bokk ci élection yi di ñëw allo ma xamal la benn affaire entreprise bi. Mm-hmm. SARL la société à responsabilité limitée. ma bàyyi kon ñoo ngi nii ci locaux yu Zik FM kon mu àndal. Mm-hmm. ñoo ngi ci askanu Sénégal peut-être inventaire nañu taxaw temm ci démocratie waaye nañu mm-hmm. fi amee. waaw waaw waaw loolu lu mat a lu mat a leeral la. waaye di woo kilifa diine yi. Ah, lii ñoom ñoo ko xëy gisal ko seen. ñu ngi ziar. ñoo ngi woo porteur de voix yi. ñoo ngi woo lépp koo xam ne. waaw waaw waaw mën nga gis dara xam nga waaw waaw bu dee waaw dañuy wax dañuy wax seen TV ak Zik FM bu dee dafa am entité juridique. maa ngi leen di nuyu. bokkoo gëm sa bopp bu dee gëm sa bopp lañu bëgg a rey man lii bokkuma ci. di nga xam ne loi prévoir na procédure mais xam nga def naa loxo di gàllu. lu tax nga ni da ngay da ngay. xaaral ma ñu xaaral ma ñu nga expliqué. tey dafay nëfëral emploi Mass Bougane dafa wax bëkk démb ci nu melaan mu leer na ñi comprendre euh, ñi comprendre woon ma ni su boobu dañoo comprendre li Bougane wax moo ngi woon pale kafa téewala woon la mu expliqué dafa leer dafa leer dafa leer dafa leer dafa leer naaj mu mel ni suñu je n'écoute personne. ñëwaat na moom it ci place bi. non non moi je me bàyyi comme dama lay nga. waaw ci place bi. li xew ko jàngate. li xew tey dafa dafa doy waar. man en tout cas. lu si bokkul léegi dem naa. contestation d'objet saisi alors am na. yàlla yàlla Euh, mais mosuma ko gis personnellement man mosuma ko gis chimère la ak huissier suba xaw kan moo leen orienté ci man ñu ñëw ngeen koy déglu noonu en direct am nangam nangam accompagné de la ndaw si ki leen jiite ne ma euh, Fatou Diop maa ngi lay nuyu xew ma ne ko lan moo xew mu ne ma ah bon on est là dans le cadre d'une mission euh, na ma ne ko non yëguma ci dara mu ne kon huissier mais Thiam Euh, expliqué ko mu wax ma la ca nekk man ko ah comme yéen da ngeen da ngeen ñëw def rek a wax journal li ñuy kii nee na parce que tam daa lire ci benn taxi amoon na nag xaalis euh, comico yëmbal koo gis na na nga woote ci 77 336 80 51 wala 77 774 72 66 am communiqué yoon mais dafay xaw a doy waar. bu dee prolongement wu. dossier impôt et domaine bi la. Ah. dafay xaw a doy waar. parce que ah. boobaak léegi tam ñu ngi koy coow publicité. ñëwal publicité. ñu ngi ciy wax. ñëwal pub ñëwal pub wax wax nga ko léegi. xam ngeen jaf ko bu neex. ràññee leen léegi cafka baxidel bi ànd ak fer ak vitamine A meew bi sénégalais yi taamu lañu dooleel ak lait fer plus bu bees bii xeex anémie fer bu doy mooy xeex coono ànd ak calcium bu doy tamit bridel lait fer mooy seen wér gu yaram bridel meew bi gën a neexal seen dund tës tës ci Zik FM di journalu faits yi suba su ne suba teel di mu jotee altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeur tës ak Ahmed Aidara Sadio Mané joue un club participent à ce jeu d'enjeu. Vous voulez de Sadio Mané à Liverpool? Eh oui, achetez un produit sur www.oumouexpress.com et gagnez un billet d'avion pour aller regarder Sadio à Liverpool. Plus vous achetez, plus vous aurez la chance de gagner. Dugg leen ci www.oumouexpress.com. Saa yoo fa jëndee mën nga am wërsëgu gagner benn billet avion dem seetaani match Liverpool ca Angleterre ak Sadio Mané. Sadio Mané dalal la nga nekk ganam yóbbu la ci tribune yi boole laak ñëpp nga daal di miin championnat d'Angleterre ci saa si loo gën a jënd rek gën a yokk sa wërsëgu nga ñaay tey promo Raktak par Sedo et par Orange Money ak la promo Raktak de Kirène avec Orange profite de pour cent de bonus sur recharge crédit par Sedo wala pour cent sur recharge par Orange Money à partir de francs CFA Sedo la Orange Money mën aussi par Sedo et par Orange Money sur recharge moins de francs promo valable sur recharge à partir de francs. Waouh, c'est Comme moi, tu peux préserver la performance de ton moteur, comme au premier jour. Pour cela, le choix de ton lubrifiant est essentiel. Heureusement, chez Ola Energy, distributeur officiel de mobile, tu trouveras un large choix de lubrifiants qui assure à ton moteur fiabilité et performance. En plus, un expert y est toujours disponible pour te conseiller. Avec nos gammes de lubrifiants Ola Immobile, un large choix s'offre à feegu si sibiru njaboot gi yëpp war a nelaw si sànk bu ñu naan daal guddi gi yëpp at mi yëpp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbali tàng demal gaaw ci kër docteur bi la gën a jege ngir ñu taxawul taxawala ci ni mu waree defal la TDR test de si rapide si li ngeen dul fay dara si bërëb bu fajukaay yi fi nguur gi sànc wala ci seen case de santé ak des yi si fukki minute ak juróom nga xam ndax da am sibiru wala déet bu dee da am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggu ak sibiru tëdd ci sànke bu ñu nàndal la ngir aaru aar sa njaboot jëlee fi sibiru

c'est UTM ma passion mon métier c'est UTM mën nga am sa métier bopp te nag balaa ngay génn entreprise yu mag yëpp dañuy recruter chez nous c'est UTM une filiale du groupe Pefort Jollof Chicken. Quelqu'un d'entre vous a-t-il l'explication du succès de Jollof Chicken au Sénégal Jollof Chicken succès bu am ci Sénégal kan moo ko mën a expliquer ah loolu neex rek la ak saf Jollof Chicken waaw waaw ku nekk di laaj kañ la Jollof Chicken di ubbi sama gox le 7 octobre Jollof Chicken dina ubbi Kër Massar le 29 octobre Jollof Chicken Malicounda Mbour waa Mbour yéen a ko doon laaj a ko doon laaj le 29 octobre le sem Jollof Chicken Koungheul Malicounda di tijji Kaolack le 5 novembre ah mbokk yi Kaolack le 5 novembre lay doon le 12 novembre ñu daal di dem Bargny waa Bargny yéen a doon laaj seen Jolof Chicken Jolof Chicken bu Bargny pare na le novembre lañ koy tijji le novembre ñu daal dem Tivaouane ah waa Tivaouane Jolof Chicken le novembre lay doon le 10 décembre ñu daal dem Louga ah mbokk waa Louga ci entrée Louga Louga lu muy yaatu yaatu yëpp Jolof Chicken rek laa fa xam kon nag mbokk Jolof Chicken 6 décembre lañ koy tijji ah dama ni Jolof Chicken wër na kan moo ma mën a le succès de Jolof Chicken au Sénégal. Jolof Chicken ak croustillant en commandel rek ñu livré la. pop, pop, pop, C'est bon. Excellent. Oh là là là J'adore. Bon. Vous aussi, laissez-vous tenter par la délicieuse pâte à Mon Choco. Produit au Sénégal, Mon Choco vous offre un goût intense et riche en émotions pour titiller vos papilles à n'importe quel moment de la journée. En tartine, en dessert ou même à la cuillère, sa recette unique, savoureuse et riche en vitamines fait le bonheur des petits et des grands. Avec Mon Choco, Choco, vos tartines ne seront plus pareilles. Vous aussi, faites-vous plaisir avec Mon Choco. Disponible partout au Sénégal. Le meilleur goût du chocolat, c'est Mon yow mi nga xam na jàng français mooy sa yitte yegg si nga institut français dina tàmbali njàng mi fii ci dakaar ak këram nga ca Ndar ñeenti fan ci weeru octobre wii di ñëw ñëw leen gaaw bindu si balaa xat ngir am xibaar yu gën a yaatu jokkool ak sunuy ndaw ci 33 823 03 20 33 821 08 22 boo nekkee Ndar. wooteel ci 33 938 26 26 institut français mooy daj dëpp gi ci njàngum farañse suñu jigéen yi di yëngu si wàllum entrepreneuriat ñooy sopp suñu moomeel ngir def si ay produits yu baax si wér-gu-yaram yéen itam ñëw leen dooleel leen si foire à l'innovation ay atelier culinaire animation waxtaan njaay ak jënd ak sax ay activité pour ndaw yi ngi leen di xaar lu ko dalee le 29 ba le 31 octobre 2021 ci place de souvenir Zik FM. presse bi nekkoon jamono moo fi nekk bi nekkoon jamonoy Ablaye Wade. Hmm? moo fi nekk ba léegi. presse bi nekk ci jamonoy Macky Sall gii. mooy wéy te boo fekk Macky ak Zik FM yoo xam ne def signe. ni dañoo bëgg dugg ci téléphone ñu bëri ñu may woon. ay journaliste. waaw nee nañu ñoo bëgg a dugg ci téléphone bi ñu bëri ñu may woon. man way naa laay yow de dem nga bay ma man way naa laay yow de wetal nga ma man way naa laay yow de dem nga bay ma man way naa laay compté waale mu ngoog information baa ngoog comme ni ngeen ko gisee déggoo ko aussi ci rajo bi daal dinañuy ànd ak ay huissier ak i gendarme ñoo xam ne dañoo ñëw di saisir matériel bu Sen TV ak Zik FM inventaire donc inventaire la def si nii ci Zik ak Sen TV alaaj foo muy ci wàllu diine. Mhm. muy l'information courante mais tey askan wi nga xam ne dañoo dañoo. mu ngoog kon euh, ñu mën leen permettre ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 628 28 28 ngeen bës 1 ak 33 841 20 69 ngeen bës 1 ngeen dugg ci rajo bi su ko defee nag euh, wax dëgg yàlla ngeen mën a wax seen xalaat euh, ci li nga xam ni it moom moo di matériel li ñuy def inventaire di lépp loo xam ni Sen TV ak Zik FM am na ko ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di huissier yi nga xam ni ñëw nañ fi ànd ak i bi donc chimère ñu ubbi téléphone bi.